mais soo xoolee rek contumace bi nga xam ne moom moo ko waral moo waral lii yëpp. Mhm. contimence bi nga xam ne moo waral lii yëpp. Mhm. waaw man contumace pratiqué naa ko ay yooni yooni yoon. Mhm. waaw moo tax bi ma déggee Ismaïla Madior di joxe une interprétation contimence par rapport Ousmane Sonko man dama jàpp ne xëy na dafa am yeneen droit yu bees yu ñëw. yoo xam ne ñun jànguñu ko woon. non bu sans il s'agit de Sonko moom da ngay mel ni droit beneen bu bees tax. bu bees tax waaw bu jógee ci bu jógee du ciel ñëw wàcce. Euh, et li ci gën a yéeme mooy parce que xam nga matière bi matière contumace c'est le c'est le droit pénal. et la procédure pénale. spécialiste yëpp muy ñuy jàngale droit pénal. Mhm. université. commencé par le doyen Ndiak Fall. Mhm. c'est un ancien. toogoon na fi c'est un ancien du droit pénal. invité c'est un ancien du droit pénal moom loolu la la. fii la toogoon invité nañ lépp lu mu la wax nag ci droit pénal téere la. bien sûr voilà parce que moom il n'a fait que le pénal pendant toute sa carrière. donc tous les professeurs de, de droit pénal tous les avocats tous les magistrats les Ismaïla Madior wax. Mhm. ak les am. comme yàlla ak yàlla et donc euh, maanaam jalgati bi man ci li ma gis ci loolu foofu la njëkk tàmbali parce que nit gi soo ko condamné par contumace ñu jàpp ko pour quelque raison que ce soit mais décision boobu cette personne a un droit à un nouveau procès et donc jalgati yooyu jalgati yooyu moo jur Euh, lii situation bi ñuy dund nii est-ce que war na am na war nañ ko inscrire wala nañ ko inscrire. Mhm. et donc donc départ bi jalgati yoon moo ko moo ko moo moo jur lépp. d'accord mais dama dama ne man euh, lii du affaire ministre de la justice di affaire magistrat la dossier bi mu ñëwee ministre da ko doon bàyyee entre le procureur et le président de la chambre criminelle ñoom ñoo koy régler mu jeex mais. le fait que pouvoir pouvoir exécutif immiscé wu dans le dossier. di jox ay dafay conférence de presse loolu moo jaaduwul. donc. Et du coup dañu nit ñi dañu am impression que concernant Ousmane Sonko li ñu ko teg yëpp tegul ci yoon.